Allah yëkkati itam kàddu yi ndigal la ku ne xam na ni fii amunu fi kàddu gu nu war a yëkkati xam na nu bu wér ni itam ni fii jàkka la waaye nag borom bi dafa wax ci hadiisul qudsi ni abdi lam yashkur ni ida lam yashkur man ajraytu niamati ala yadayhi aw kama loolu rekk a tax ñuy wax yonent bi wax ni man lam yashkuri naas lam yashkuri llah loolu rek a tax nuy wax du samay kàddoot kàdduy sëriñ Ndaam Kan mii di sunu xalifa di xalif sëriñ Moustapha Kan di xalifab sëñ Mor Fangom Kan moom laa yëkkatil ay kàddoom ndax moo woote bis bii waaye woote ko itam nag sëriñ Muntaxa moom sëriñ Basiiru Mbàkke moom sëriñ Tuubaa moo woote bis bii sëriñ ab sa moom Serigne Modou Awa Balla moom maam Thierno Ibrahima Fati moo woote bis bii te bu ma waxee loolu day mel ni sax ñaar maa ngi koy tuub ndax ñoom duñu ñaar kenn la kenn rek ay woote kon sëriñ Touba rek a woote wuy woote nag ñu wuy si la mënoo lu may sant yàlla sant yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gërëm sunu sëriñ muy ak Cheikh Ahmadou Bamba buñ dee sant naan ñi ngi sant ki ñu defal ñun de kenn defaluñu ku dul sëriñ Touba. kenn nag du kenn ku nu defal du kenn ku nu defar ku dul sëriñ Touba moo tax kàddu yi dama cee am ndigal ci sëriñ bi bu wér luy gàtt lay doon itam fii it jàkka la te dañu fi kenn ku ne xam na ne ay gana fi ñëw dañoo war a yeeweeku rawatina kilifa yu tedd yii ñu may nu du du fu ñuy waxe ay discours ku ne di jël kàddu damay jottulil sëriñ Ndaam bu ma ko jottulilee sëriñ Abdou Karim Ba Kane dana wax ci turu mboolem famille Kaneen bu noppee sëriñ bii am na kàddu yu nuy jottali mu jóge ca sëriñ ba bu noppee ñu ñaanal nu yeewee ko sëriñ bi ñu ngi leen di nuyu bu baax mbàkke ci suturu sëriñ ndaam waaye ñu ngi leen di siyaare bu baax mbàkke a ah, ñun dey sant nañu yàlla ndax sunu xel dafa dal lool lii danoo yaakaaroon ni jomb nanu waaye nag xam na ni jomb ndax ku gëm sëriñ Touba lanu waaye day ñu ngi leen di yóbbante ak cant ak ñaan ci kilifa gu tedd nga nga xam ni mooy sunu yaakaar yaakaari tey mooy sunu yaakaar yi ëllëg sunu xol sedd na guy ndax ku gis ñii ànd ak ñii ànd ak yow di nga xam ni sëriñ ba bu ma yeboon ni njaboot gam am gépp ñëw nañu loolu dañuy sant yàlla ndax waxuma la ñii ñëw de waaye kë gën a kenn dellu fa gannaaw sax waaye ñasant sant mbaw ku mu ca yabaloon doy nañu sëkk ndax noonu ku nu fa yabaloon rek jëmmi boppam ja la ñu koy xoole na rasula bi qadril mursil kon Mbàkke sunu xol sedd na guyu ñi ngi lay sant ñi ngi lay gërëm ñi ngi lay yóbbanti ca sëriñ ba sunuy cant ak sunuy ñaan te mooy lépp loo xam ni yéene na ko liggéeyal sëriñ Touba yal na ko man na mu ko bëggee moom manam magam ju baax ji sëriñ Sidi Maxtaar te yàlla yàggal leen fi lool Mbàkke nu topp ci seen gannaaw mboolem askanu kan seen xol sedd na ah lii nag sëriñ Ndaam nee na mi ngi lay xamal ni ay rakkam ak moom ak i doomam ñoom lay jiital ci cant gi gannaaw bu leen santee ba noppi ndax am njaboot ñu topp ci sa ginnaaw déggal la dafa jafe te moom nag nee na loolu yàlla defal na ko ko yàlla baaxe itam ay magam a fi jiitu waaye cër bii ak xéewal gi nga xam ni lislaam rekk la ñu ciy gis nee na moom la ko yàlla jagleel ku ne xam na ni lii néegu yàlla la ah yàlla dimbali ko barakam ju baax di Muntaqa Kan sëriñ Muntaqa moom sëriñ Basiiru yaral ko boppam wax naa ko léegi moom day xëy na juddoo na fi mu war a juddoo ndax sëriñ Moustapha Kane moo jur waajuram waaye nag nun nu loolu lépp ki ko yar rek la nu xool muy sëriñ Mountakha wax naa ni moom day bëgg sëriñ Touba dong la war a def ndax ku sëriñ Mountakha yar mënoo ñàkk bëgg sëriñ Touba njub rek la war ndax ku sëriñ Mountakha yar mënoo ñàkk a jub ku sëriñ Mountakha yar mënoo ñàkk bëgg say bokk ku sëriñ Mountakha yar mënoo ñàkk a wormaal jullit yépp ndax ku ne xam na ni muy doxe ak ni ak ak ni mu déggoo ki bokk moom sëriñ Mountakha nga xam ni lu lëj mu lijjanti ko kon dañuy ñaan ci yàlla ak yonent bi ak Serigne Touba yàlla yàggal ko fi sunu xol sedd na guy Serigne Dame nee na xolam sedd na guy ah mu ngi lay jottali itam bëgg na nga santal ko Serigne Mountakha ci si Mountakha kan mii nga xam ni njabootam la yàlla boole kook moom mu jëfal ko jëf ju rëy jii ci dëkk bi waaye nag ànd kook bokkam yépp ak mboolem koo xam ni rek yaa ngi bokk ci sin lay kan kon ñépp seen xol sedd na ñu ngi lay ñu ngi koy sant ñu ngi koy gërëm ñu ngi koy ñaanal bu loolu weesoo itam. sëriñ ndaam nee na sëriñ ab Absa lu mu am ñëw na fi tey sëriñ Amsatou ngi nii ab taawam ngi nii di sëriñ Modou di sëriñ Koso sëriñ Abdou Samata ngi nii sëriñ sëriñ waaw sëriñ Abdou Samata ngi nii di rakkam di rakkam sëriñ Koso ngi nii di di ab taawam ànd ak rakkam ak njaboot boole leen ak njaboot gépp nag ñëpp ñëw nañu kooku it yaakaar naa ni lu mu am jox nañu ko ndax kat sëriñ mu lay kan moo féete woon ak sëriñ Basirou Mbacke sëriñ Mor Mor Fangom kan moo féete woon ak sëriñ ci maam Thierno Ibrahima Faati noonu la yàlla dimbalee sëriñ Moustapha kan mi nga xam ni moo sanc dëkk bii kon moom itam na la wóor ni nga jottalil nu ko sëriñ bi du yónneen nag maanaam lu ñu fiy def rek yow lañ ko defal nga xam ni sëñ Moustapha sa day taxaw na ci dëkk bi taxawin woo xam ni ñu ngi ciy sant yàlla bu baax ci taxawaayam ak ni mu jabootee dëkk bi lépp lu fi ba sa xew nii rek la ñu fiy teewe ah kuur yabal sa rak yabal say sa njaboot wax dëgg yàlla la nga am lépp joxe nga ko kon moom it ñu ngi ñaan ci yàlla ak yonent bi ak Serigne Touba li mu yéene liggéeyal borom daaru lépp yàlla na ko yàlla dimbali ba man ko nam ko bëggee sunu xol sedd na guy Serigne Ndaam xolam sedd na njabootug siin lay kan gépp seen xol sedd na Mbàkke yàlla na yàlla yàggal leen fi bu loolu weesoo itam kii di toog mooy Serigne lay kan di doomi Serigne Modou kan moom Serigne Mor Warxa kan yàlla dogalit mooy ilimaani daaru daaru moxti ji mooy ilimaanu siin lay kan ji dëkk tuubaa kan mooy xalifa sëñ Modou kan ànd naag njabootam gépp a nga ne sëriñ Abdou Karim a nga ne sëriñ Cheikhou naa nga ne ànd ak seeni rek ak njaboot gépp kenn desul fii nag lu fi mas xew ñooy taxaw lépp ñoo ko yor fi la ñuy fanaan bu dee gàmm màggal gi ñu fi def fi la ñuy fanaan lu ñu fi war a def ñu def ko waaye Mbàkke tund wi nag kenn desul tund wii nga xam ne mooy tund siin lay kan du na Dakhar kenn desul maire baa ngi nii toog ay meeru ñu ngi ku baax la koo xam ne lu ñu def lu ñu sumb fii rek ànd na ca ak ñun kon Mbàkke ñu seereel la ko bëgg nga ñaanalal nu ko pal gu yees gi nekk ci moom yàlla defal ko ci ndam waaye ni ma la ko waxee nag mboolem tund yi kilifa yi fi nekk ñëpp ñëw nañ waa daaru baaxu mag du ma lim sax ndax bu ma limee damay bàyyi kenn te loolu waruma sant nañ ñëpp gërëm nañ ñëpp ñu ngi ñaan nag lii nu fi sumb ah sëriñ daam yàlla na ko ràppal barke sëriñ Touba ah lépp lu ñu fi julli ah yool bi yal na fekk suñu waajur yee nga xam ni lu ñu fi am rek ñooma noonu ko fàggul lii ak fàggu la du sunu njàmbaar du suñu dara luñ ñu fàggul la ñooñee nag ñi ngi leen di ñaanal yàlla yee yeesal seen yërmande barkeb Serigne tuubaa Mbàkke ñu ngi balu àq maa ngi balu àq bu baax di jégglu wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. yow ak ahlu Mbàkke gi fi teew yëpp sëñ Kosam sëñ Moustapha sëñ Moulaw Balla ñu ngi leen di nuyu ci turu askanu Sindékane wépp sëñ Bas yóbbaale woon na ñëpp dafa baax rek ay li mu wax kenn mënatu caat ak dara nuy jéggalu nag nuy jéggalu nag rajo bi yaakaar naa de nuy jéggalu bu baax nag ndax wax warunu nit su ko nit ñi wëree di wax ak tabam te asaka rek la tiim bu ñu ko ne borom jaag baa ngi nii bu des gor dana téye loxoom te xam nañ ne taal boo fi seen tey lu mu yaañ yaañ sëñ Tuubaa ko taal te wallaahi soo ko werantee bu ximbee matam nga xam ne moo ko taal kon nag Mbàkke noo ngi jéggalu kàddu gi fi jël nu koy jëli ci tur askan wépp jaarale ko nag tey ci sëñ daam mi nga xam ni mooy xalifab sëñ Moustapha Kan di xalifab sëñ Mor Fangam wax naa ko ni ne ko sëñ Basso abdi lam yashkur ni ida lam yashkur man ajratu ni'mat ala yadihi mënee su la sant sant suñ daam ak ak sëñ Muntaxa ak sëñ Muntaxa mi nga xam ne nii moo def lii sëriñ daam nag sant na yàlla bu baax ndax maga yi fi wuutu ak bàyyi yi fi wuutu baax fi moom la yem waaye lii moom la ko sunu borom tàngale tiranga nag ci ku ñuy topp ci yoon sëñ tubaa jàkke ju toll nii ak kër sëñ tubaa mun ko wees ci kaw suuf kon nee na mi ngi sant njabootam gi ni ko sëñ Bass waxee rakka fi ne dooma fi ne akub taalibe nee na sant na leen ndax ku mu ci woo nga wuyu ko ku mu yónni nga dem ku mu digal nga def ku mu tere nga bàyyi ku mu nga jox ko lool na nit am ko lu kopp ci njabootam kon nee mi ngi sant bu baax a baax muntaxaa nag lii mu def waxuma lañ ci dal man bana lillahi masjidan bana allahu lahu baytan fil janna lii ku ko tabaxal yàlla nee dinaa la ko fayee kër ci àjjana waaye lii mu def di dundal bokk dafa rëy lool ndax du dundalug bokk da caa bokk boo leen tane ci wërsëg nga dimbal leen ca soo leen tane ci wërsëg nga soo soo dàll ak soo làmmiñ di wax lu baax ba bokk nga defaru moom nag lii mu def day lu rëy ndax li ëpp ci mbooloo mi tey boo leen laajan kay kon mun taxaa duñ ko xam duñ ko xam lépp ci mbooloo mi te lu jafe la nag def teraanga ba mu àgg nga jiyoog moom bàyyi nit ñi di ko jariñoo lu jafe la te kat yaraw na anfusahum doonal wara abadan wa annam lam yaliqu bil karamaati wa annahum afsaxul fusaax kulluhum wa annahum lam lam yaliqoo bil ijaabaati ñu sëñ Tuubaa jalalal ni dinaa leen jooy li leen weeri jooyee ak jant beeg asamaan yi bokk na seen i jikko nee na ku ñu taseel ku nekk danañ yaa leen gën te gën ñëpp lu ñu ñaan suñu borom mu def ko abuñu ah, nee ñaan ñu foofu ni seen loxo def ci ginnaaw ni mën a sëñu maa ñaan foofee na nit di mën a too toll jariñu ci yàlla lii mun taxaa def dong ko mën a jariñu waaye tey su nekkee fi ñu naa mun naa rajo bi feer rajo lu bari dina wàññi ko ci kon askan wi yëpp ñu koy sant lii mu defit lu rëy ndax wa taqullaa allati tasaaluna bii wal arxama yàlla moo nu sant ak bokk ba mu bindee bokk da ko ne anta rahma an ana rahmaanu anta rahimu man xata axtamu man xataak bokk da ko wax ni demal sama ñaari tur yi nga xam ci laa lamb yërmaande adduna ak àlaxira muy rahmaanu rahim jël naa rahmaanu tudd la rahim ku jokk dinaa ko jokk ku dinaa ko dog te am na ku ñëw ci rasulullahi sallallahu ni ko samay bokk damay rafetal ñuy ñaawal ma leen di jokk ñu di ma dog di jox ñu di ma xañ ndax sañ na maa fay mu ne ko boo fayoo yem ak ñoom salaasatun min aqlaay ahlil janna dafa am ñett jikko yoo xam ne ci jikko yi waa àjjana la bokk laa toojidu ilaa fii karimin kenn du ko fekk ci lul ku tedd ke mooy buy ñaawal ngay rafetal nit ko xam ne fu mu xëy jaar fa lu mu den di kom ko yàq loo am jox ko la ca topp nit koo xam ne dalaa foñ ca saa bu jógee jawal këram kon nag sëñ daam loolu rek mooy sa sa liggéey am nga lu rëy yal na la ko yàlla jàppale am nga rakk yu ak i doom yu yaru yu baax yu ami cër ndax ñaari cër yi mu seetlu woon bii mu jox ko sëñ Bachirou bi mu jox ko maam kenn benn yaafusu ji sëñ Bas mi fekk nañ ko fu waaye mboolem njabootu sëñ Moustapha Bassirou gépp ci ci ci ci biir Saalum mooy seen kaddu moo fay seen bët moo fay seen lamm ci kenn jëppiwu ko sëñ Koso mii toog ab cër mënta weesu mooy taaw sëñ ab sa waaye dama ne ka mag ci këram sëñ Madun mi nga bokkal ndey ak bàyyi wuutu ko fi moo ko jur di nuyu nag bu baax sëñ Fàllu mii mbake ndax day seen mbokk di jabaat sëñ Muntaxaab lenge di loxol ndi jooram yàlla féetale koog noonu waaye dama wax ni tijaan yéen ko gën a bëgg loolu nag moo ko waxee mooy sere ja dara jus ji murid yéen ko gën a bëgg loolu mooy taalibe gi dara jus ji kon sëriñ bi yal na ko yàlla yàggal noo ngi sant baax a baax te jéggul daal wax dëgg waaye li ma doon leeral rek sëriñ bi sëriñ Cheikh mi ngi ànd ak sëñ Mamor Rakam ànd ak sëriñ Basirou ànd ak sëriñ Moustapha ànd ak sëriñ fallu mi nga xam ni boo ma yeboo liggéey bii bépp ni ko sëriñ bi waxee léegi moo ma lépp moo ko coordonné ba mu yegg fii Mbàkke yal na ko fi yàlla yàggal te tund wépp it sant na ko ni ko sëriñ bi waxee léegi kon sëriñ Abdou Samad sëriñ bi nee na bisimilah. rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. sëñ bi ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di la siyaare di la ndokkeel jàmm di la jottali suñu nuyu ak suñu suñu siyaare ah, ah, ah bi nee mi ngi nuyu bokki ju bokki jullit yi fi teew yépp mu ni mi ngi jiital ci nuyoo bi sëriñ naa Mbàkkem sëriñ Muntaxa mi mu di ko ñaan mu jottilil ko nuyoo bi waajuram wu tedd wa nee na kàddu yi mi ngi ko jële ci sëriñ Moustapha ab samu tedd ma waajuram nee na moo ko yebal mu teew fi tey boole kook maam Thierno ak sëriñ Cheikh Mbakke ak sëriñ Abdul Ahad nee na muy sant bu baax a baax a baax di gërëm waa dëkk bi nee na di gërëm ki jëf jëf ju rafet ji nee na di ko xamal ni moom ki jëf-jëf ji sas na waa dëkk bii di daaru kan ndax jumaa buñ koy tabax jullee tax ñu di ko tabax nee na dëkk bu mu nekk ku fa jege amatoo sañ-sañu jullee sa kër lu dul jullee ca jumaa ja nee na biñ ko tabaxee ba àggal lu mu rafet-rafet ak lu mu rëy rëy rëy bu ñu ca julliwul ab magasin rekk lay doon nee na nee na kon nag waa dëkk bi nañ ci taxaw bu baax di fi jullee si julli juróom yonent bi sallallahu alayhi wa dafa wax ni bu ngeen tabaxee jàkka ba noppi am na ñeent yoo xam ni war ngeen koo moytul seeni jàkka bañ koo def grand muy waxtaanukaay bañ koo def marché bu ñuy jaayee ko jënde bañ koo def fawukaayu xale yi bañ koo def noppalukaayu dof yi yooyu ñeent moom la yonent bi waxoon ni dee leen ko moytul seeni jàkka bu mu doon fawukaayu xale yi bu mu doon marché bu ñuy jaayee ko jënd bu mu doonub grand place bu mu doon noppalukaayu dof yi nee na nguur suñu borom gi mbiram sunu borom dafa lool lii tey day tegtale ni ki nekkoon ci dëkk bii di liggéeyal yàlla yàlla nangu na ab liggéeyam nee na dëkk bii bañu ko sosee jàkka ji fi nekkoon mën naa nekk mbaarum xat mën naa nekk mbaarum gattax waaye ki ko defoon dafa ku amoon yéene la bu ko mënoon a tabax jamono yooya dana ko tabax waaye yéeneem joojee nag moom la yàlla àggale tey jii boo demee Makka ci jumaa yi gën a rafet ci àddina la bokk bi ñu koy tabax mooli mooli ban rekk la woon boo demee ma diinatul Madinatul Munawwara fa yonent bi di nee na noonu rekk la woon ba ñu koy tabax dañoo yéene woon ni luñ man ci rafetal ko daañu ko def looloo tax mu mel nee mu mel jumaa ji jumaa yi Tuubaa ji bi ko sëñ bi tabax bi ko sëñ bi sancee mbaarum ngeer dong la woon wax nañu ni sëñ bi tàkkusaan la fa njëkk a julli bi mu génnee ci jàkka ji perkaal bi mu sol ŋar yi dañ koo sam ba dafa ñuul waaye mbaarum ga taxam moomee amoon na yéeney ni bu amoon or sax def ko fa yéenam joojee suñ borom àggale na ko tey jii kon borom dëkk biit lam yéene woon sun borom àggale na ko tey kon nan góorgóorlu nag ci taxawul ko ko bu baax a baax jàkka mooy néegub yàlla kenn moomu ko ñépp ko bokk yonent bi sallallahu alayhi dafa wax ni dëkk boo dem barab ba fa sunu borom gën a bëgg mooy jàkka ya barab ba mu fa gën a bañ mooy marché ya kon bu sunu borom doon gan ci dëkk bi tey fii lay wàcc kon nanu ko fonk bu baax te di ko defar di ko bale nanu ko fonk moo gën sunuy kër nan ko fonk bu baax a baax nay set te nu di ko dundal di fi teew julli juróom dara gënalu ko sunu boroom ndax mboolem ibaadaat yi yépp sunu borom bi mu koy jox yonent bi dafa yebal ndaw ni ko boo demee nee ko mu def nangam ak nangam waaye julli juróom nag daf ko ni daf ko dafa ni Jibril wool ma ko mu ñëw yonent bi ñëw ba fa sunu borom mu ni ko dee leen ko defee nii kon julli ñor na yàlla lool wax na ni jaam bi gëm yàlla di gënam ay boromam ay buuma fi nekk buñ demee ba mujjug jamono noonu sunu borom yi danañu ñëw di ko dagg buum guñ dagg ñu kalaambiitu ci geneen ñu daggaat ñu kalaambiitu ci geneen mu ni gu ñuy njëkk a dagg mooy atteb yàlla ci suñ borom bind nit ñi moom leen moo xam moo wax ni dee leen ma atteele nii loolee bañ nañ ko googa moom dagg na bu daggoon yeneen ne fi julli na fi sunu digganteeg sunu borom dara yàqu fi waaye ba saa bu jullu daggee tàggoo naa noog sunu borom wala yaasu bi la yàlla nañ ci yàlla musal nee na nee na nañ fonk julli bu baax te di fi teew ñu yor jàkk ji itam ñuy bàyyi xel ci ñoom ay soxla lañu am am yitte nañ leen di jàppale da ci waaw da am yoo xam ne faaw ñu sóoraale ko boo demee ci réew yi nga xam ne lislaam da leen a ñor lool euh, am naa lu ñuy wax wisaaratul awqaaf moo yor jàkk yi ak jumaa yi ña fay liggéey ay fonctionnaire la ñuy doon dañuy am solde ñu di leen ko fay loolu nag amul Sénégal kon fu jàkkane ña fay liggéey ñoo xam day ñu nodd wala dañuy julli waa dëkk ba ñoo leen war a dimbali kon nañ leen jàppale bu baax ñi ngi sant bu baax nee na nee na mi ngi yóbbante sëriñ bi nuyoo akub siyaare ca sëriñ ba jërëjëf Mbàkke nee na mi ngi nuyu mbooloo mi fi teew mépp ci turu sëriñ Muntaqa nee na xam na ni bu dul woon ndigal li sax du jarati muy wax ndax li ëpp ci li ñu ko yónni woon gannaaw bi ma ko tàmbulee sëriñ euh, sëñ Abdou Karim wax nee na sëriñ Abdou Samad mii àggale na ko nee na kon day wax ngir ndigal rek waaye nee na li ëpp solo ci li ñu war a wax wax nañu ko waaye sëriñ Muntaxa nee na mi ngi ñu mi ngi ñuy nuyu bu baree bari nee na cant gi mi ngi koy tàmbulee ci bokkam yii di sëriñ Abdou Samad ak ñi mu àndal ndax sëriñ Abdou Samad mii rakkama kon bu fi teewee mel na ni sëriñ Muntaxa teew na fi mu ngi koy nuyu ak ñi mu àndal ñëpp waaye nee na it mi ngi sant mboolem bokki kaneen yi nee na mi ngi sant yàlla bu baax ndax lii di jàkka ji ak yokku ci lislaam ba tax na fépp fu mu amee woon xolam da cay sedd guyu waaye nag na dëkk bii mu ame waaye rawatina nag muntaxaa mi nga xam ni ci moom la ko yàlla jaarale kon muy dollee yeesal wëllëreem woowu wi mu amoon ak sëriñ lay kan di waajuru Muntaxa Kan ndax nee na Muntaxa Kan bi mu koy jox sëriñ bi booba ku tuuti la sëñ Muntaxa moo ko yar waaye ku ne xam ne itam ni sëriñ Muntaxa ni mel ci Muntaxa Kan ni mu ko bëggee def ko doom def ko xarit def ko taalube nee na loolu képp ku nekk ca kër ga xam nga ko nee na loolu googu kóllëre mu seqoon nag sëriñ Lay Kane mi ngi koy yeesal nee na mi ngi koy yeesal nag ci mbooleem waa Kaneen nee na mi ngi sant yàlla nag ci liggéey bi bu baax ndax ni ñu ko xamee jàkk ak yokkule ci lislaam te nee na lim gënoon a soññee sëriñ Abdou Samad da koo leeral léegi leeral goo xam ni xaj na moom sax mënu caa àgg waaye ñu xam ne julli moom dafa bokk ci ponki lislaam yi képp ku ko taxawal taxawal nga diine du loo xam ne itam dafa war jullit bu nekk te di ko defee ca jàkka ja itam nee na donte am na ñu naan sunna suñu feddali la waaye addis rot na ci boo xam ni ndax nee na silmaxa sa ñëwoon ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallama ni ko rasulullahi man de dama amul ko ma ommat ndax ma man di julli si ci jàkka ji ba yonent bi dogal ko ngànt waaye ba mu wanee gannaaw bay dem son yonent bi sallallahu alayhi wa sallam woowaat ko laaj ko ni ko waaw ndax bu ñu noddee da nga ko dégg mu ni ko waawaaw mu ni ko kon nag del julli si benn jullit amu sëñ te ñàkk julli si ca jàkk ja bu amul ngànt kon loolu sëriñ bi nee na nañu ko déggee noonu sëriñ Touba mii sunu sëriñ ku ne xam na ni ni mu fonke woon jàkka fu mu masaa nekk lu mu gàtt gàtt dana fa def jàkka donte ay bant la koy wërale sax ndax xam nañu ne jàkkaam jamu jañu tasaare woon ca Gabon te yàlla fayee ko ko jumaa yi ak Njaareem sëriñ Touba ku ne xam na ni noonu la fonke woon jàkka kon nun ñi nga xam ne ay taalibeem lanu nanu fonk jàkka bu baax nii ko sëriñ Abdou Samad waxe nañ ci góor góorlu di ci julli si tey taxawu jàkka ji muy set di ko toppatoo bu baax a baax ñi nekk ci jàkka ji it ñu di leen toppatoo nee na wax ji moom da koy gàttal lool ndax nee na niñ ko waxee jërul ñi di ci dellu sëriñ Muntaxa ndax waa këram yépp la yebal si ni ma ko waxee léegi sëñ Maamoor la ko booleel di rakkam sëriñ Basiiru sëriñ mustafaa ak sëriñ Fàllu mi nga xam ne moom day jarbaatam di loxoom ah, ànd ak sëriñ Taale Sëy mi nga xam ne ku ko xam-xam ko ci wetam te nee na loolu sax doyul sëñ bi bu te bu bu mënoon ñeneen mënoon a ñëw danañ ñëw waaye nee na li tax xolam gën a sedd mooy dañ fee fekk seeni bokk ñii di seeni waajur ñii di ay magam kon nee na xolam sedd na bu baax kon daal dañuy ñaan yàlla nangul nu liggéey bi gën ñoo xiir ci lislaam gën ñoo teg ci saraatal mustaqim ñuy taalibey sëriñ Tuuba lépp lu nu fi jaamu yàlla yal na nu ko yàlla nangul nee na li ko sëriñ bi waxoon ëpp na loolu waaye li ci ëpp dañ ko ko waxal kon nee na yal na nu yàlla boole dimbali bismillah ngeen tàllal sëriñ bi ñaan سلامة